jarbaatu Seex Abdulaa Ndaam mbar ma moore yi mbir waa daaru alima xam kan mooy sëriñ baara jarbaatu Seex ba sonn tondoon gàggar gaaya gagoon ca lawhu mahfuus man yem naa sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dàmbee xam-xamu bi kamam booleeg firub alxuraan maa gëm sëriñ baara fa fa yàkkoon la dàmbee xam-xamu bi kamam booleeg firub alxuraan maa gëm sëriñ baara taalif na téere yu rëy yuy salmasi taxamul kaa nga kifoore du xam mbindum sëriñ baara taalif na teeru yuy salmasi ta xamul kifoore du xam mbindum sëriñ baara siru baroot ak bayaan ak teere taxa xam ca alimul xaybulal tabe baara sëriñ bu la cosaan bay weddi lii ma la jàngal mu nawir bul yaalum sëriñ baara sëriñ bu naw sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu nawir bun yaanub sëriñ baara si rub aroot bayaan ak téere yi taxa xam caalimul xëy bu lañ tëbbe sëriñ baara ci géeji xëy bu la naan ba maan di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal dey sëriñ baara cogee ji xaybu la naan ba man ni ñëw di ba ngeen nekkuy lu mat dandu leen bal sëriñ baara koo xam ni kii bu musaa tàngoor ba geesu wetam lum xol mu takk jërit moo di sëriñ baara béjéen bu réy ba fi daane nooru diina ya woon yàlla ko sot ba mu ñëw te sëriñ baara béjjën bu ba fi daale nooru diine yawaan yàlla ko sot mu ñëw mooy sëriñ baara koo xam ni yàlla dadaa dakkul xelam lu mu wax mu far dajeeg dogalam boobe sëriñ baara koo xam kii bu ko neexoon bis bu saa taxawee muram muru yépp far moo di sëriñ baara koo xam ni kii sawaraat tàngoor wu rëy mu am bu nee na dina fay moo di sëriñ baara koo xam ni kii ba mu sa xaw ma idol xaw ma idol la ko gën a waaye bu fekkoon am nañ koo xam ne ci moom la ñu xool wala muy kulkulu ci suñu bopp bii sëñ baaro képp nag képp nag te te te yaay sëñ baar te yaay sëñ baar kon sëriñ bi dañ lay ñaanal yàlla yàggal la dañ lay ñaanal yàlla suñu borom wéral la dañ lay ñaanal yàlla suñu borom may la kattan nit ku bëgg say rakk nga nit ku bëgg say taalibe nga nit ku am jom nga nit ku noppi nga nit ku toog nga nit ku doylu nga nit ku nangoo dimbalee nga nit nga koo xam ne da jël sa sa sa ñëpp sa njaboot yëpp jiital leen buñ la daan def nga ne man xaw ma nu ngeen def lu ngeen waxtaan bu juboo am naa kenn mu sa dégg ñu ne sëñ Moustapha ne nañ def nangam mbooloo mi kay daje ba aggal ni nañ def nangam dikk ni ko am ah, nangam kat lañ bëgg def mu ne ànd naa ci. te bu la neexoon da ngay rendi di di xëttati uh, wut paagab xoddo paagab xoddoos loxo ma di rendi nga xam ne du rendi ba du yëg mukk te kenn du ko sañ a bañ ndax yow la fa yàlla teg waaye noppal ngeen ñëpp. waaye gudd fan dong la lay jural ku am njariñ ci nit ñi yàlla am njariñ ci yow ku noppal nit ñi yàlla noppal la ku yërëm nit ñi yàlla yërëm la ku bëgg nit ñi yàlla bëgg la ku jox nit ñi yàlla jox te wallaahi lii may wax nii suñ borom dong laa ko seere soxlawu ma ko ko gëm ak a wet suñ borom dong dong laa seere lii may wax nii bu ma gisutoon lu ma xam daay dem ci saa kër toog am naa kër am lu nit di am am naa ko kon damay dem ci sama kër toog waaye la ma jaral ma bàyyi sama lépp loo joxañ ma fexe ba kenn du ma ci ji gisuma ca man jikkoo la te ci yow laa ko gisee ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëgguñu ko ci mën a jullee mën a woor ak dëkk bàkka jikkoo la koy la koy yàlla suñu borom tagg ndi ko wa innaka la ala xuluqin azim nit dama koy yemale fii sax sëñ bi ndax nit boo waxee lam baax la lépp

soo bëggoon a dem mu ni ko toogal ma dem te nga wuuf ya falu ak baara